leen jàmm ñu door rek ak xibaar bu tiis bi dal ci kaw Sénégal xalif général Ndiassane di maam Cheikh bu Kunta wuy ji borom tey ci Tëngéej kooko doonoon ko xam ne rek mooy xalif bu Ndiassane doon tamit ko xam ne dafa taxaw dundam yépp mu jagleel ko diine islaam doon ku xamoon alxuraan te bëgg ko doon sàkku tamit saa su nekk ngir Sénégal am jàmm ak dal ci diggante bu rafet tamit ak tarixe yi ci loolu nag dañuy euh, dem rek euh, ci ci buubu jokkoo bi wax ak kenn koo xam ne rek ku jege famille bi la doon tamit euh, taalibe di Bécaye Mbaye bu 2STV suñu Bécaye gannaaw buñ la jaalee ana lan nga ñu mën a baaxee ci ki fi bàyyi ko tey. lii bokk ak yéen xanaa siis bi yëpp di ko bokk ak jullitu Sénégal yëpp di nit ku baax koo xamante ne lislaam moo ñàkk Sénégal moo ñàkk nekkoon mbokk ñëpp it nekkoon mbokk jullit yëpp nekkoon sët bi jiitu it ci nekk xalifa général ginnaaw bi nga xam xamante ni maam bu génn na àdduna mu toog toogaay boo xam ne ni toogaayu diine la toogoon toogaay boo xam ne toogaay bu rafet la uufoon njabootu cheikh bu Mouhamed Kounta yëpp uufoon it njabootu cheikh cheikhal Bunaama yëpp tey ji lislaam ñàkk na ku mag ndaxte du tarixa moo ñàkk ndaxte boo demee Touba ay mbokkam la boo duggee biir Tiwaawan ay mbokk ma fa nekk foo ci dugg ci këri diine yi rek li ñu fa fekk njaboot bi nga xamante ne moo di njabootu Cheikh Bou Mouhamed Kounta soxnaam ci boppam bokkoon ci sëti Serigne Touba yi mu am njaboot goo xamante ni ci biir am na ci ay sëti Serigne Touba di koo xamante ni bokk naat ak ñëpp daal Sénégal daal l'islam moo ñàkk tey jii ni ñu ko defee foofu ci Tëngéej la génnee àdduna ñu ngi koy waajal nag ñu ngi koy waajal fii ñu toll nii ndaxte ci njaboot bi rek daf ci am ñoo xamante dañ leen a yóbbu yónni woon ca Algérie mu amoon spécial boo xamante ne nii tukki la buñ fa demoon taawam di Mohamed Kounta ma nga ca Algérie tey jii la war a yegg si nii ci avion spécial moom ak délégation bi nga xamante ne xalif bi yónni woon na leen foofa lépp ngir ci lislaam rek ak lu koy gën di yaatal rek ñu ngi waaj a wàcc fi nga xamante moo di aéroport bu Blaise Diagne bu 16 jotee ginnaaw bi ñoom it dañuy jubal seen Njaasaan ñu ngi xool ndax dinañ ko denc wala dañuy xaar ba suba ci xibaar yu jot daal dañ doon xaar taawam ñu ngi xool nag ndax tey lañ koy denc wala ëllëg bu neexee yàlla ci suba gi ñu koy jaale ñëpp di leen ko jaale yéen ñooñu waa TFM di ko jaale rajo yeeg télé yu nekk ci réew mi yëpp di ko jaale di xam ni daal l'islam ñàkk na ku baax l'islam ñàkk na ku gore waaye nag dañ ciy sant yàlla ndaxte yàlla moom mooy dogal noonu yàlla mooy defe noonu ñuy ñaan rek yàlla na ko yàlla xare àjjana ci barke yeneen ci bi xam naa ni nag dinañ ciy dellu si waat yu bare bare dinañ ci dellu si ndax ñu ngi nii di jubal ko bu soobee yàlla jërë ngeen jëf jërëjëf sëñ bi di la ko jaal yow tamit xamoon nañ ne ku ko jege la da ci loolu sax dañuy desandi ki nga xam ne rek mooy Ahmed Bachir Kounta di keneen koo xam ne rek ci famille bi la bokk di fas yéene wax ak moom rek ci ki nga xamante ne moo fi bàyyi ko tey di maam Cheikh bu Kounta ca Ndiassane bu fekkente ne jàppandi na ci buumu jokkoo bi euh, sëñ bi Kunta ñu ngi lay ziar gannaaw bu ñu la jaalee ba noppi. waaw waaw euh, ñu ngi leen di delloo nuyu. waaw gannaaw bi ñu la masawoo lan nga ñu mën a baaxee ci ci fi bàyyeekoo tey. waaw li may li may wax nag man dama ni maa di maa doon porte parole am di porte parole famille bi. bokk itam ci li nga xam ni bu ko yàlla tuddee mën na toog ci deru Cheikh Bou Kounta kon du ma n'importe qui ci famille bi waaw foofu mu foofu mu toogoon bu ko yàlla tuddee mën naa fa toog bon loolu bon moo ma ko waxee moo di moom moo di set bi nga xam ni set bu jëkk la bu toog ci deru Cheikh Bou Kounta gannaaw bàyyi mi ngi toog en 2006 nekk fi ay at yoo xam ni atu defar la woon ci moom atu dundal ndono bi la ndax ndono tawxiid dafa di lu rëy waaw ndono tawxiid di dafa di lu rëy te ci loolu la nekkoon e taxaw itam ngir lépp loo xam ni moo di bennoo lislaam loolu mu ne jàppandi ndax loolu ndono la ci sunu maam Cheikh bu Kounta ndax sunu maam Cheikh Bou Kounta fab na doomam ju ñuy wax سخنا أس أيشة كنت مومورو سرين مود مصطفى مباكي تاو سين توبا فاب دونم جنوي وخ سخنا مريم سيدي كنت جوخ سين بابا كرسي مومورو سين بابا كرسي خالي جنرالو تيجاني أما بنين دونم جنوي سخنا أمينة كنت مومورو سرين محمد مصطفى فال تاو سيخي فال أما بنين دونم جنوي سخنا مريم كنت يدينك الشريف عبد العزيز عيدرام ci fii ngeen xam ni moo di Tëngéej moom mii nelaw tey di alaaji Mambu Mamadou Kunta moo di doomu sëñ Mamadou Kunta sëñ Mamadou Kunta moo doon ñetteelu xalifa Cheikh bu Mouhamad Kunta euh, moom alaaji Mambu mu fi jóge tey jii mi ngay denc doomu sëriñ Modou Moustapha Mbacke mi ngay denc donc sëtu sëriñ Touba am moom njaboot ñu koy wax soxna Amin dina tam Mbacke lii dafa wane rek ni Eh, ndono bi nga xam ni moom la ñu fi maam yi bàyyi te mooy ndono bennoo ndax dégg waxu yàlla ga waxtasimu bi bi xablillahi jamian wala tafarraqu mm. eh, mooy ci bu mu yàlla gi bañ féewaloo benn yoon loolu eh, ci la nekkoon mm. moom nag mi ngi gane woon àdduna 1925 doo ko xaymaa tey si tey nekk na juróom-ñeent fukki at ak ñett barenas ndax saxiba faw mënta nekk inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun ci ngal yàlla la nu bokk te ci yàlla la nuy dellu loolu nuy jàngale bis bu nekk jërëjëf jërëjëf te itam la nga xam ni moo di li am ku tiim raw di cheikh bu kunta tiim raw di cheikh bu naama tiim raw yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa di nga xam kenn du fi des kenn كان في دش كل شيء هالك الى وجهه متهيا للنون ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين يقول جرجف جرجف جرجف جرجف سيرين احمد بشير كنت كادوي رافتنا ديك جال نجابو دي ديك جال وا اسلامي يك دي نيان رك